duñu teewee défilé bay am ci 4 avril gannaaw ba nga xamee ne ñoom dañoo décliné invitation bi leen état du Sénégal dal di woon def ngir ñu daal di koy teewee waaye Barthélémy Dias dañ ko faa dal di gis comme ni ngeen koy gisee si image bi mu sañ si ba jekk takk ay lunetam dal di fay toog en tant que maire de Dakar Barthélémy Dias demu fa ci turu Yewwi Askan Wi waaye puisque moom moo nekk maire bu Dakaru Ndiaye mënul def lenn lu dul di teewee défilé boobu nga xam ni dañ koo dal di organiser ci ab région wam fekkonte ne ci région de Ziguinchor lañ dal di organiser buy lépp défilé moom Barthélémy médiase du ca teew waaye président Ousmane Sonko kenn mënu ko cee tere teew te bu ko deful dina wàcc yoon ndax bu boobaa protocole bi ñu suivre ak mbir mi nañ ne le maire mooy le premier magistrat de la ville. loolu sax moom moo waral ba am na ñu bëri ñu nekk ci biir Yewwi Askan Wi ñenn ñi fare ci Pastef dal di nañ delloo njukkal Barthélémy Dias ci sens de responsabilité bi nga xam ne moom la doxee te leeralal ñëpp tamit que ni moom teewu fa en tant que opposant waaye en tant que maire de Dakar. Abbas def na lu ni mel moom mi nga xam ni mooy coordonnateur bu Pastef Dakar daa am ab message bu ama am solo boo xam ne daal dina koy bind ci leeral sénégalais yi liñ daal di expliquer léegi kon nag Barthélemy Diaz il a agi en responsable politique nag moo demee nu ni mel ñenn ñi dañuy profito ci yenn occasion yi ngir daal di lëndëmal xelu sénégalais yi ñi nga xam ne ils n'ont pas compris ñu daal di leen gëmloo que ni daa am division boo am ci biir opposition bi rawatina ci biir yeewi askan wi ndax loolu mooy seeni ay stratégie yi ñuy daal di tekk ngir féewale sénégalais yi ak opposition bi waaye nag mbir yi du sotti ndax saa su ne ay leeral dinañ ko ci daal di indi ngir sénégalais bu ci nekk nekk daal di yeewu xam exactement ce qui se passe dans ce Sénégal yi nga xam ne nag dañu war a booloo takkatoo nekk benn say daal di koy liggéey ndax buñ ko deful rek ëllëg mën nañoo jural ay jafe-jafe te 2024 ca lañ jëm virage bu amaam solo boo xam ni buñ ko raté cinquante ans ba cent ans ci kanam sax du tax ñu dal di koy dabuwaat kon il est temps de se réveiller arrêtons de dormir comme le lion qui dormait au palais comme le disait à l'Assemblée nationale président Ousmane Sonko. 2024, c'est à nous les Sénégalais. Donc traçons notre destin avant qu'il soit trop tard. AGT